Pape mu tëdd maa ngi dégg muy onk mënul saxa wax soxna na fi mbay mu ngi ko tiim nan ko papa as lan la waaw waaw papa as lan la waaye mënul sax wax mu ngi onk rek mu ngi onk rek ma tiim ko lu yàgg daa di yëngal sama bopp xam li ma xam rekk daa di wàññeeku naka laa wàññeeku semaine bi mu wuy jee benn mag ñëw fekk ma fi ma toog ni ma sa rakku papa bi fi des kan la maniko ni pap malik mu a kon baye bonga parel ku nax fay dem billahi wal kitab fekk benen mak nyan ma rendez-vous Me recevoir ko Kiko fekke mu ngi tok, mu ngi ni. Ma ma ngi tok sax waaw dafa bañ ko ko xamé. mu ni ma dafa am lu ma la doon ñaan Mané ko lu mel nan mu ni ma nga jël sa oto dem seeti sa bay ba Malick ma ni ko demal nga wax ko góor gi ba mu d'accord mu mel ni ku jaaxle ndax li ma ko ne wax ko góor gi moo tax bi ma ko ko waxee ñu teg ca une semaine ñu dàggi sëriñ Pape Malick ma di ko tooñ moom mag boobu ne ko léegi nag ku may seeti mu jaaxle ndax affaire bi def ko fi jóge kaw mu ni ma li ma ci xam ma ni ko mu ne ma kër gi yëpp tey jirim lañu yow lañu ñu dese waaw waaw ba tax na kon nag ku yóbbu di tey boo xamul lu xew nga bàyyi xel ñi xam lu xew ñu wax la ba ngeen jógee ca dëj ba da ngeen ñëw ba ca buntu ba ñu ni du ngeen dugg cheikh mbeng mii daf ma yónnee message ni ma la tadxulanna al masjid al haram insha allah waaw aminin wa muxalliqina ruusakum wa muxassirin yàlla xam na ko ma ne ko ah xaayan ka dëgg séeréer mu mel ni kon nag boo xamee lu xew da ngay teey dafa am mag mu nga xam ni magu sëriñ Cheikh la sëriñ Cheikh moo daan def buy ñëw gàmmu kursu bi mu ne ma jëlal ma mag mi ci sa oto moo tax bi fi góor gi jógee ba léegi bu may ñëw ci événement moo Katim Touré bi